bis lay jox cofeel am na ay xeetu ndomb yoo xam ne lépp looy xëccoog doomu aadama rek yaay nekk ca kaw ah sëriñ Abdou salaam nag bàyyiwul benn yoon waa bitim réew yow mii nga xam ne ay këyit rek mooy sa yitte yow mi nga xam ne sa yoon da ngaa bëgg mu leer naññ dawal gaaw seeti sëriñ Abdou salaam Mbàkke jëkkër nga bëgg sëriñ Abdou Salam daf la ciy defal ay ñaan yow mi bëgg soxna te muy sa yitte lool sëriñ Abdou salaam daf ciy def ay ñaan moom mii di sëriñ Abdou nag nee ma bàyyi benn yoon ñi nga xam ne dañoo am feebar ndoxum siti hémorroïde wala sax nag ngóor a sonn la lool nee na benn pot laa lay jox meew nga ci def tàngal ba mu tàng jër daal di koy naan rek sa lépp faju képp koo xam ne bëgg nga sa ay aajo faju rek dawal gaaw nga daal di seeti Serigne Abdou Salam Mbacké Dakar Guédiawaye marché Sam numéro téléphone bi di 78 433 78 78 Serigne Abdou Salam Mbacké kéemaanu yàlla rek la. laata ñuy door revue de presse bi nag ñu ñëw ak yéen ci match bi doon dox ci diggante équipe nationale féminine bu Sénégal ak bu Haïti équipe nationale bu Sénégal nag dafa nërmeelu ñeenti bal ci dara la ko Haïti dóor kon équipe nationale lu jigéen ñi du ñu dem ca coupe du monde ba barrage yooyee jeexal nañu ca tàkk ndax bu ñu amoon ndam démb ci kaw Haïti dañuy jàkkaarloo ak Sili waaye mujj ñoo am ndam kon toog nañu ca barrage yooyee muy équipe nationale féminine ñaari attaquant équipe nationale yu Sénégal la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa jot na nag ñu yeewu ci ki journal bi njëkk moo di Bamba Dieng mi nga xam ne jugee na ca Marseille dem ca Lorient waaye doomu Sénégal bi nag dugalagut ci clubam bu bees boobee ba tey jii naam mi ngi football waaye dugalagut kon yeewu jot na loolu la ko journal bi xamal bu dee Elimane Ndiaye moom ni mu dooree woon saison bi baax na ma nga doon dugal di def ay paas ca ba mu nekk di Sheffield United waaye match yi weesu dugalut kon doomu Sénégal bi na yeewu bu dee Famara Diédhiou moom ma nga woon ca Turquie waaye jugee na fa dem ce Espagne club bu ñuy wax Granada deuxième division bu Espagne nag la nekk waaye ba mu fa demee ak tey jii nag dugulut paasut kon nag war naa yeewu ci weekend bi bu dee Boulaye Dia moom it ma nga ca Salernitana naam ni mu dooree woon saison bi baax na ma nga doon dugal ma doon def ay paas waaye gëj nañu koo gis kon gaynde yi war nañoo yeewu ci weekend bi doxalaat ak seeni club loolu la journal bi xam le ki yeewu tey doxal moo di Krépin moom àndoon na ak équipe nationale dem ca coupe du monde ba waaye doxalul woon waaye jamono ji nag mi ngi doxal ak AS Monaco rawatina keroog bi ñuy football Ligue Europa doon jàkkaarloo ak Bayer Leverkusen doomu Sénégal bi doxal na ca match boobee dugal na bit bu rëy muy Krépin Diatta kon moom yeewu na journal bi tamit ñëw na ci équipe national u bi nga xam ne Malick Daaf moo leen di tàggat ñoom nag seen kaan bi suba lay door CAN UV bi suba la Sénégal di football matsam bu njëkk Nigéria la ñu war a jàkkaarlool bu 17h jotee kon nañu leen ñaanal ñu dugg ci duggin bi gën ba noppi def kaan bu baax indi coupe bi ci réew mi. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Nampalys di la surnal bi fësal ca code wu njëkk wa suba nag moom ak waa Leicester match bu mag la ñu am ca Old Trafford la ñu jëm Manchester United la ñu war a jàkkaarlool bu 2h jotee match boobee nag ñoo ngi cay xaar doomu Sénégal. Sénégal bi moom li mu bëgg moo di départ titulaire doxal comme ni mu ko defee woon keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Tottenham keroog doxal na te dugal na li mu bëgg moo di suba mu départ titulaire doxal ca Old Trafford muy Nampalys Mendy journal bi tamit ñëw na ci équipe nationale u bi suba la ñuy door kaan bi nag kon nañu leen ñaanal Nisiri yàlla ñu war a jàkkaarloor waaye journal bi fàttewul attaquant sénégalais bii di Habibou Diallo moom nag ma ngay football ca Strasbourg waaye doomu Sénégal bi ma ngay doxal foofe journal bi nag dafa samp ab laaj. maa ngi leen koy laaj yéen mbokku internautes yi ci commentaire yi ndax Aliou Cissé du force mu woo Habibou Diallo suy football ci weeru mars ndax Habibou Diallo kat ma ngay doxal ca Strasbourg jamono jii doomu Sénégal yey football ca bitim réew daanaka benn attaquant gënu ko caa dox waaye moom nag. amul wërsëg ci équipe national bu Sénégal journal bi tamit fàttewul Ligue 1 bu Sénégal weekend bi nag ñoo ngi ciy xaar match yu neex tey jii nag ñaari match képp mooy am bu quatre heures et demi jotee Douane mooy dalal Casa Sport Casa Sport mi jël deuxième mooy jàkkaarloo ak Douane ci même heure bi maanaam ci benn waxtu bi quatre demi sona demi Sonacos mooy dalal Tëngéej football club mu soxal lik 1 bu Sénégal ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe waa Lyon le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa daanooti nañu de Lyon nag ni mu dooree woon saison bi baaxul woon waaye bi ñu soppee coach su ak tey jii nag ñoo ngi doon doxal waaye démb daanuwaat nañu ki ñu doon jàkkaar lool moo di Auxerre naam Lyon moo ko mënee woon waaye bi ñu miitaamee ba dellu si ci matul ñaari minute ci la waa Auxerre dugal ñaari bit ca cëppaa ndaw ga nag ñaari bal ci benn la Auxerre door Lyon kon Lyon daanuwaat na ànd ak Laurent Blanc te loolee gëj naa am bu dee waa Auxerre moom gëjoon nañu am ndam lu ci tolloog juróom benn bëccëg amuñu ndam démb nag am nañu ndam lu ama am solo ñu jugee France wutali londre Angleterre fekk fa miror Sport Cheikh Altani la bi fësal ca xët wu njëkk wa kii nag moo bëgg a jënd Manchester United tey jii ci samedi ji lay indi offre bu njëkk ca club boobee offre ba mu noppi ngir jox ko waa famille Glazer mi ngi toll ci quatre milliards de livres sterling offre boobee nag bu ko indee ba famille Glazer nangu ko sart yii la bëgg a teg ca club ba nee na club bi bor boo xam ne club bi yor na ko man noppi naa ngir fay ko te su fekkee loolu am na tamit damay tënku ci bëggu-bëggu supporters yi lépp lu supporters yi bëgg dinaa ko def lu ñu bëggul du ko def loolu la xamle te nee na su fekkee loolu am na tamit club bi dinaa jënd ay joueurs yu baax indi ko fi club bii di Manchester United nekk fa ko ñëpp xamee woon di doxal di am ngoon yu neex waa Arsenal tamit ñoo ngi ci journal bi rawatina ki leen di tàggat di Mikel Arteta moom nag nee na Angleterre gépp ñun waa Arsenal la ñu faral ndax képp ko laaj mu neutre waxul dara rek jàppal ni Arsenal la faral ndax kat ñëpp li ñu bëgg moo di ñu jël Premier League bi ndax ñun waa Arsenal gëj nañu koo jël lool kon waa Angleterre gépp ñoo ngi sunu ginnaaw. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk marka yéenekaay waa Real de Madrid le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa yuumte de waratu leen ñoom waa Real de Madrid Osasuna la ñuy fekki tey jii bu vingt heures jotee match boobee nag li leen ca war moo di am ndam ndax Barcelone ma nekk ca bopp classement ba juróom-ñetti poñ la leen rawee kon Real de Madrid njuumte yi jeex na li ko war moo di gagné Vinicius tamit dellu si waat na ginnaaw bi ñu ko ajee benn match. waaye journal bi nee na Vinicius nag bu nekkee à l'extérieur maanaam bu dul ci stade Real de Madrid day sonn lool ndax gaañ ñi dañu koy gaañ ndax gaañ yooyeekat su fekkoon téeméer la juróom benn fukk yi ak juróom-ñaar yëpp moom la ñu koy jox. su fekkee Liga Santander la waaye nag nee na su fekkee Ligue des la moom. moo xaw a tane ndax gaañ yi su fekkoon téeméer la ñaar fukk ya ak juróom-ñaar Vinicius moo koy jël kon Vinicius nag gaañ yi sonal nañu ko lool ca Liga Santander ba loolu la surnal bi xam le journal bi tamit ñëw na ci mbuxum yi nga xam ne moom la ñuy jiiñ Barcelone jamono jii ki ciy wax nag moo di président liga bi di Tebas Tebas nag nee na mbir moomeekat mën naa indi jafe-jafe ci football bi wala ci sport bi loolu nag kon bu laajee ñu dem ci yoon it dinañ ko jiw bu ci yoon ngir càmbar ko ba mu leer nañ ñi président Tebas moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Vinicius le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa alerté Vinicius Vinicius dellu si waat na nag ginnaaw bi ñu ko ajee benn match tey jii dey footballaat ak club bii di Real de Madrid Osasuna la ñu war a jàkkaar lool waaye Vinicius nag bu du terrain wu Real de Madrid day sonn lool moo tax Liga bi jël nañu ndogal tey ndaw yi nga xam ne daan nañ leen yónni ci stade yi ngir ñu saytu ko ndaw yooyee dañ leen di yokku ca Osasuna li ñu bëgg nag moo di wax ju ñaaw ji nga xam ne waa Real de Madrid nee nañu dañ koy wax Vinicius waa Liga bi saytu ko ba xam dëgg la am déet ndax Vinicius kat wax ju ñaaw la ñu koy wax ci stade yi moo tax kat bu demee à l'extérieur sax du doxal ndax Vinicius ci Liga Santander gëj naa dugal à l'extérieur maanaam terrain bu nekkul terrain wu Real de Madrid mi ngi gëjoon dugal ca derbi ba bi Real de Madrid fekkee Atlético Madrid ca Wanda boobee la gëj a dugal à l'extérieur mu jëm ci Liga Santander. ca pàccolik Barcelone gi di Pedri tamit moo ngi ci journal bi moom na xam ngeen ne jamono ji dafa blessé te Barcelone ak Real de Madrid war nañoo jàkkaarloo ñaari yoon mu soxal Coupe du Roi Pedri nag li mu bëgg moo di football ca match yooyee bu dee match aller bi moom lool ndax wóoragut te mat match retour bi tamit wóoragut mu bokk ca muy Pedri waaye moom li mu bëgg moo di football ñaari match yooyu yëpp ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport yeni Ferreira Carrasco ak Pavard la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa waa Barcelone nag benn réunion la ñu bëgg a def jagleel ko ñaar ñi ndax ñaar ñii képp la Barcelone bëgg ci saison bii ñu dëgmal te ñaari joueurs yi nag ñoo bokk benn agent seen agent mi ngi tudd Pini Xavi moom moo leen di jaay ñoom ñaar ñëpp Pavard nekk doomu France Yannick Ferreira Carrasco nekk doomu Belgique Barcelone li mu bëgg moo toog ak Pini Sahavi waxtaanee mbiru ñaari gone yi bu saison bi jeexee ñu dem jàppale Xavi Julián Araujo it mi ngi ci journal bi journal bi nee na ñëw na ca Barcelone xaatim na contrat Barcelone yàgg na koo topp jamono ji nag jouru Barcelone la présenté nañu ko démb muy araw Araujo nekk latéral droite bu mën la muy def waaye saison bi ñu nekk nag du mën a football ci équipe A bi ci équipe B ba lay dem ñu jugee Esport jël Mundo Deportivo Vitor Roque le journal bi fësal ca wu njëkk wa moom nag moom képp la bëgg a dem football fa muy attaquant bi nga xam ne doomu Brésil la di football ca Atlético Paranense gone gi Barcelone képp la bëgg a football te Barcelone it bañu ko waaye Barcelone jamono ji nag day xaar fair play financier bi ba xam lu ko gaañi di wax su fekkee gaañi jox nañu ko ndigal li ñu bëgg moo di jël avion dem ca Brésil waxtaanee ëllëgu gone gi jéem ko indi ca Camp Nou Sportif yi mu doxal muy Vitor Roque nekk attaquant di football ca Atlético Paranense nekk mën la muy def ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fo Corriere dello Sport waa Napoli la journal bi fësal ca wu njëkk wa ñoom nag ay punkal lañu waaye dañoo am ñaari punkal muy Kvaratskhelia ak Victor Osimhen démb Sassuolo la ñu doon jàkkaar lool dur ko ñaari bal ci dara ñaari gone yi ñoo dugal jamono ji nag mbir maa ngi gën a niru dëgg ñi ngay gën a jege pour jël série A bi muy waa Napoli jamono ji Inter mi topp seen kaw dix-huit poñ la ñu ko rawee waaye Inter nag tey lay football bu dix-neuf heures quarante-cinq jotee Udinese la ñuy dalal waaye jamono ji daal waa Napoli sànni nañu karawaas ndax mbir mi niru na dëgg lool série A bi soo moytuwul ñoom ñoo koy jël ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport match Maximiliano Allegri la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa jamono ji nag sonn na lool ca Juve ndax lépp mën nañoo wax ne moo koy def dafa wéet lool ca club ba sonn na lool muy Maximiliano Allegri waa Napoli tamit ñoo ngi ci journal bi jamono ji nag foofu ñu démb Sassuolo la ñu doon jàkkaar lool dóor ko be waaye ki leen di tàggat di Spalletti nee na Sassuolo pare nañu ci moom li ñuy waajal moo di sunu match bi war a dox suñu diggante ak Francfort mu soxal Ligue des Champions mardi bu vingt heures jotee Spalletti ànd ak gone yi li ñu bëgg moo di am ndam ca Allemagne mm. waa Inter it ñoo ngi ci journal bi ñoom nag jamono ji xam nañu ne championnat bi ñàkk nañu ko muy Serie A bi waaye lépp lu ñu am jamono ji dañu ko bëgg a teg ci Ligue des champions bi ñoom mercredi di àllarba la ñuy dalal Porto match boobee la ñu ca bëgg moo di am ndam ngir kat defar seenub saison waaye tey jii nag bu 19 h cinq jotee